الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى بصفاته السنية وبأسمائه الحسنى وبذاته الشريفة العلية على مظاهره الخلقية الحمد لله الذي اختار لنا خير نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم ثم الحمد لله الذي اختار لنا خير كتاب هو كتاب القرآن الكريم ثم الحمد والحمد بعد حمد وحمد لله الذي خصنا بأحسن وأفضل الدين هو دين الإسلام حيث قال في محكم تنزيله إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله كذلك اختار لنا بشهر فيه ليلة خير من ألف شهر وشهر رمضان وفي هذا الشهر المبارك أنزل القرآن كما قال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu نيم بقي di bëgg seq ak waxtaan ak suñu télévision bi nga xam ne mooy Hann TV weeru koor yi comme weeru koor lañ nekk ñu waxtaan ñoom si weeru koor yi ngir baaxee mbokk yi ci dénkaane yi ñu ngi tàmbalee di sant yàlla si bépp miroom di ko sant moom yàlla bi mu ñu tànnalee yenent bu gën si yi mooy Muhammad sallallahu alayhi wa mais ñu téere yi nga xam ne moo gën si téere yi mooy alquranul karim tamit moom yàlla mu tànnal ñu ba tey diine gi nga xam ne moo gën si diine yi mooy diine islaam ba moom yàlla nee na inna diine indalaal islaam diine nga xam ne moom la yàlla nangu mooy diine lislaam loolu yëpp si mbaaxam la moom yàlla nekkul si suñu jëf wala xam dañ ko yeyoo déedéet si mbaaxam la moom yàlla ñu may yooyu may ñu gën ci diine gën ci yenent gën ci téere moo tax yàlla nee na kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi moo tax ñu nekkoon xeet wu gën ci xeet yi comme suñu yenent moo gën ci yenent yi suñu téere moo gën ci téere mooy alquran suñu diine moo gën ci diine mooy islam kon nag kun naa xayra ummatin uxrijat linnaas moo tax ñu nekk xeet woo xam ne moo gën ci xeet yi mu sa génn ci aduna moom la yàlla wax sa alquran waaye lu tax ñu gën ci aduna nag mooy xeet yu nga xam ne day digle lu baax di tere lu bon kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi lu tax ñu gën si mbindeef mi mooy te taamuruna bil naa wa tanhawna anil du ñuy digle lu baax di tere lu bon loolu rek mooy suñu garantie dañoo gën si mbindeef yi kon la jëpp sant yàlla la yàlla may ñu nag si diine jooju islaam gi benn weer woo xam ne yàlla wax na si alxuraan mooy weeru koor wi weer woowu am na si guddi bu xam ne mu guddi ko si nekk guddi googu moo gën junni guddi yàlla neen leen fii leelatul qadri mooy guddi leelatul qadri waaw xayru min alfi shahrin moo gën ci junni weer benn guddi bu xam ne moo gën ci junni weer maanaam jàmm yàlla si guddi googu moo gën jàmm yàlla si junni weer kon nag loolu tamit ba tey jagle la bu ñu yàlla jagleel ngir yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam ngir diine l'islam ñu am weer yi mooy weeru koor wi am si guddi ko xam ne moo gën si guddi yi te weeru koor li si yàlla wax dina daan si daan si dellu wax waaye tamit yeneen yàlla saa sama wax na si nee na si weeru koor wi yàlla dina ubbi buntu ajana yi tamit moom yàlla dina tënk seytaane ba nit ki mën a wéetal boromam jaamu moom waaw dana mooy weeru koor wi nga xam si nañ nekk weeru koor bi nag mu ciy wax nag li ci yàlla wax mu ne li tukabbiru li tukammilu iddata wa li tukabbiru llaha ala ma hadakum wa laallakum tashkuruna gis nga weeru koor bi moom yàlla nee na nañu motal bis yi mooy fanu weeru koor yi ñu màggal ci yàlla waaw ndax tamit ñu sant si yàlla li ñu yàlla defal ci lu baax kon nag weer wi mu ngoog yonent yàlla sallam wax na si lu bëri moom tamit moom yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam nee képp xam ne mu ngi weer weeru koor wi di dundal guddi yi yàlla dina ko si may loo xam ne li kenn xamul fu mu yem waaye yonent wax si weer wi mu ne suma mu tasxu leen bu ngeen wooree wër te tey alhamdulilah bi ñu gisee gëstukat yi si nasaraan yi sax di wax ni tey weeru koor kuy woor dina ko may wër gu yaram ndaxte weeru koor yi ku si woor dina wàcce ñu ne tension wu nit loolu ñu ngi koy gis tey gëstu yi si réseaux sociaux yi loolu sant yàlla di ko yonent tey ëpp na ñeenti maas mooy quatorze siècle lu tey mu koy wax tey science ñëw dëggal li mu waxoon ne woor leen ngeen wër ku woor am wër gu yaram ndeke dëgg la loolu la yonent alayhi waxoon weeru koor mu ngoog bu ñu ko yàlla mayee def ñu si may jaamu yàlla moo la si jaamu yàlla dañu koy ful mana loo si def rek yàlla da koy ful si weer wi waaw bokk na nag si ngëneelu weer wi si si yenn teel sallam wax ni ba tey mooy weer wi dafay mel ni buñ ko doon natt buñ ko doon mellal day mel ni la mooy école la da nga dugg di si tàggat sa yaram di si tàggat sa bakkan mooy nas suba di si tàggat sa ruux di si tàggat sa cër yëpp mooy ko wax madrasatum تزكية روحية وتربية نفسية mooy booy woor da nga nekk si daara joo xam ne ji yaa ngi tàngat sa ba tàggat sa bakkan bi di ko miinal xiif ba xam miskin yi li ñuy yëg baa doole li ñuy yëg si xiif ak si mettit adduna nga yëg ko waaw waaye tamit nga si yar sa ruux mooy di sellal ruux bi waaw xam ne yàlla rek moo nekk nga jàng si ragal yàlla yàlla nee na lim si tax weer wii ndax ñu yegg yàlla dafa ne yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum taaqiluuna tattaquuna yàlla nee na faratal naa si yéen téere ar weeru koor wi ni ma ko farataalee si xeet yi jiitu waaye li ma si nam man yàlla laallakum ndax yéen na ngeen ragal ci yàlla dañ ci war a génn si école bi li wara am ci école bi ñu dugg mooy weeru koor wi buñ ci nar a examen bi mooy lan mooy test bi nar a def mooy ragal yàlla kum ndax yéen tattaquna ngeen ragal yàlla kon nag li ñu bëgg si weer wi si yàlla li mu namu si jambi bi si weeru koor wi mooy mu ragal ci yàlla la'allakum tattaquna ragal yàlla mooy lan yow yaa ngi tënku doo lekk doo naan yow kenn nga wét sa bopp dul yàlla gisu kon nag loolu mooy ragal yàlla yow da ngay wéet yow kenn nekk sa biir néeg doo lekk doo naan doo def leneen doo jaamu yàlla te doo si xool kenn ku yàlla loolu nag mooy ragal yàlla te jaam lu ñu wut si moom mooy ragal yàlla tamit sellal li may jëf jëf foog man sellal yàlla ne wama umiru illa li yaabudullaha waaye nag muxlisiina lahu diina li ma leen sant li sant jaam yi mooy jaamu yàlla rek waaye jaamu gi fokk mu ànd ak sellal fokk mu sell nga xam ne yow yaakaaru si gisoo si dara amoo si ngistal waaw doo si ngistal leneen du yàlla yàlla rek nga si sàkku muxlisiina mooy nga sellal jëf gi mu ne yàlla yàlla nag du nangu du jëf ju sell kon nag li ñuy jàng si koor gi bokk na si jàngat gi ñu jàngat bu ci génnee si école bi ñu dugg mooy école ruuxa tarbiya bi mooy école bi nga ciy tàggat suñu bakkan li waxee nii nga xam ne yow yàlla rek ngay ragal dugg sa biir néeg yow kenn wéet fa te doo lekk dara doo naan dara mën nga lekk génn li gisal lay dem kon nag bu dee yàlla rek moo tax nga def ko nag kon nag yow nga nekk si biir néeg bëgg si biti yëpp mooy yem da ngay tënku da ngay jàng yow ragal yàlla moo tax yàlla je xeetu jàmm yàlla boo gis rek am si yàlla namm waaye bokk na si li yàlla namm si koor gi mooy ñu gën si ragal yàlla dañ ci wax si su ci si si njëlbeen nga waaye si jeexantab dafa ne wala tukabirullah ala wala àllakum tashkuruna ndax tamit ngeen màggal yàlla si leen yàlla jëfal si lu baax ndax tamit tashkuruna ngeen gërëm yàlla ndaxte shukru moom dafa war si jaam makaamala mooy sant yàlla dafa jafe sant yàlla ndaxte sant yàlla bépp xeetu cër si nit ki bi nekk si nit ki dafa war a sant yàlla li ngay sant yàlla si sa tànk yi di dox lu baax sant yàlla si loxo yi di li jëf lu rafet sant yàlla si bët yi di xool lu lu baax di déglu lu baax sant yàlla si nopp bi nekkee tashkuru na shukuru nag li ñuy wax shukuru mooy sant dafa jafe nekkul alhamdulilah rek toog déedéet bépp jëf day sant yàlla ngay sant yàlla si sa alal gi yàlla may bu la mayee alal nga saraxe si nga asaka si loolu sant yàlla la nga am shukuru beneen sant yàlla tamit si say cër yi li ma ko waxee cër bu nekk di def lu neex yàlla waaw nga sant yàlla ci sa wërgu yaram alhamdulilah bi ma yàlla mayee wërgu yaram waaw waaye na koy. jëfandikoo soor wérgu yaram kooku ci lu neex yàlla alhamdulilah ngay sant yàlla bi la yàlla may ay bët waaye nga si jàng alquran di xool kaaba gi di xool téere alquran di xool lu baax waaw kon nag sant yàlla ko yàlla neen li ñuy jëlee si weeru koor wi bu ñu génnee si wu koor bi ñu war a asubaat suñu bopp dafa war a xisabaat boppam xool moom lan la jëlee si koor gi du rek ñu ngi woor rek dëwanati ñu woor dëwan ñu woor déedéet déedéet bu ñu wooree kay dafa war a am bu ñu génnee si weeru koor wi yàlla waxoon lim si nam woon ndax loo ci am ñu am si weeru koor yi moo tax ñuy wax ni même kuy dem gàmmu ñu ngi gàmmu bu ñu gàmmoo ba pare lan mooy gàmm mooy wax ngëneelu yenent yàlla sallallahu alayhi wa mu meloon waaye lan mooy ngëneelu gàmmu bu ci génnee lan mooy ñu ci jëlee njaxantal ba mooy lan moo ñu jëlee si ni benn melo si melo melokaan yenent yàlla sallam nga koy jéema koo meloo benn rek si tabeem nga rek wala si jikko rafetam benn jikko rafet rek jikko si yenent yàlla sallallahu alayhi wa sallam boo ko jëlee si gàmmu loolu mooy njëriñu gàmmu koor gi tamit njëriñam avantage bi ñu ciy wut mooy njëriñ bi ñu ciy wut ak njeexantal ga mooy ñu dem ba bu ñu génn ci weeru koor bi nga ragal yàlla nga boo dootoo wéet def lu ñaaw ñu xam ragal yàlla mooy lenn mooy imtisalul awamir wajtinaabu nawahi ragal yàlla mooy lan mooy jëfee digle ya mooy tindiku tere ya loolu mooy ragal yàlla jeex na si zahir ak baatin nga nekk sa biir néeg ak marché ba yépp mu yem ci yow foo ci nekk daal lu mooy ragal yàlla waaye boo nekk si nit ñi ragal yàlla boo duggee rek def lu la neex ñàkk ragal yàlla loolu bon lay nekk naa fexe incha allah musal kon nag li ñuy ut ci koor gi nii yal nañu ko yàlla may mooy am ci ragal yàlla mooy màggal yàlla tukabbirullah nga màggal yàlla yàlla nag dafa màgg yàlla dafa màgg nga xam ne yàlla mooy ki màgg te boo taxawee si kanam ku màgg war nga rus def lu ñaaw tukabbirullah ala ma ndax lim leen gindi si lu baax wala allakum ndax yéen yii ñu war taskuruna kon nag loolu si weeru koor la nekk si tënkaat rek nañ ne weeru koor mooy weer woo xam ne ay bis la yaani ay yaaman maadudaat yàlla neen kutiba alaykum siyaam kamaa kutiba alal laziina min qablikum ay bis yu ñu lim la ak tamit nekk ay bis yu ñu tënk ñu lëm maalumaat gis nga fi ay bis la daf si tënk ko tënk si ay bis bis yooyu ñu si jaamu yàlla bis yooyu yàlla daf si am ay tajalli mooy ay feñ ay muy feñ yoo xam ne daf si nangu ay ñaan wàcc si yërmande moo tax yeneen yàlla sallallahu alayhi wa sallam na koor gii si ngeen leen awwaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa axiruhu itqun min an naar gis nga njëlbeenu weeru koor yi yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy fañ fukki fan yu jiitu mu ne yërmande la yërmande la mooy yërmande li ma ci nekk loo si def rek yàlla da koy da koy ful te yàlla da lay jégal ba day jégal bàkkaat yi loolu mooy yërmande bi boo si booy woore fukki fan yi ba jëm si fukki fan yi si diggu doomu nekk si diggante ba mooy diggante fukki jëm ñaar fukki ya mooy wasatuhu mooy si diggante ba mooy loolu maxfiratun al daf lay jéggal say bàkkaat di jégale bàkkaat bi moom defoon ci at bi yëpp yàlla jéggal ko si bakkaat yi yàlla nee na wa aaxiruhu njeexantal ba nag mooy fukki fan yu mujj ya mooy mu ne itqun da ngay gore itqun mi gore nga si safara itqun mi naan naari gore nga si safara gore nga si mbugal gore nga si ngistal gore nga si rëylu gore nga si yu nekk bépp jikk bu ñaaw dox si gore itqun mi naan naari waaw loolu mooy si ngënalu koor li da bokk ñu kenn taal salaam waxee si weeru koor bi kon nag yàlla ne nañ ko ormal weeru koor bi daal li ma ñu azim xurumatillah ormal yàlla bokk na ci weeru koor nañ ko màggal dañ ko ormal am na ñoo xam ne ñu ne am na ko jaamu yàlla bu yàlla jégal ay bàkkaatam du woon woor kàccoor la woon waaye bu weeru koor gi jotee bu nar lekk sax day làqu lekk yàlla bindoo ko si bàkkaat bindoo ko si tiyaaba maanaam ku làqu lekk sax moom yaa ngi ormal yàlla yaa ngi màggal yàlla waaye daf la si bindal tiyaaba kon nag nañu màggal mbir mi yàlla màggal màggal leen yàlla nag moom koor gi da ko teg nit ki ku nekk la ko teg képp xam ne muskalaf na egg na ci kàlla nekk na muskalaf war na ko koor koor gi waaw lu dul nag nga xam ne yàlla wax ne am na ngànt man kaan minkum maridan aw ala safarin fa mina fa iddatun min ayyaamin ukhra xam dafa feebar wala nga nekk ci tukki mu ne da ngay lim wax bis yooyu fay ko ci yeneen bis yu mel noonu waaw waaye ak ñi nga xam tamit du ñu attan woor ñoo dem ba mag wala feebar ba xam ne feebar boo xam ne xam dëgg-dëgg yaakaaruñ si wër ñooñu yàlla daf leen jéggal du ñu du ñu fay du ñu fay ku dem ba magal ba nga xam ne màggal na mënatut woor wa ala alladina yutiqunahu fidyatu taamu masakina gis nga ki nga xam ne egg na si magal bi nga xam ne mag na ba nga xam ne mënatul woor dafa war a moom waratul woor waaye dafa war a jotee koor gi ni mu ko war a fayee mooy di leeleel ay miskin di leeleel miskin suus boo xëyee nga jox li nga xam ne mun na leeleel miskin nga daal di koy jox miskin ba saraxe ko loolu la war a def da ki nga xam ne feebar feebar boo xam ne xam ne ne yaakaaru ci wër moom tamit dafa war bis bu nekk muy def loolu boo xëyee jël loo mën ci dugub loo xam ne dina doy miskin benn waaw jox ko sarax ko miskin ba wala ceeb wala li nga xam ne moom la ñu gën a cosaanoo si dëkk boobu nga jox ko miskin ba waaw lii nag mooy weeru koor la yàlla wax mooy lan mooy koor mooy tënku imsaakun mooy nga tënku imsaakun koor mooy imsaaku rek tënku ku ñuy wax s'abstenir mooy nga tënku si ñaari bànneex mooy bànneexu la gémmin doo lekk doo naan waaye tamit bànneexu sëy doo ko doo laal jigéen ba heure dog jot loolu da ngay tënku maanaam tënku la al sawmu imsaakun an shahwatayn al batni wal farji bànneexu gémmiñ ak bànneexu sëy loolu nag bi fajar xar xar fajar ba timis jant bi sow loolu mooy koor